taaf pétrole baa nga mbaawo Satu penelak sudah minggu ni Jiri kau nak main balik kayu yàlla may ko ci ndam tey tey Liss nan la dundee loolu. waaw li ma dundee mooy mooy mooy mbégte rek. waaw di am kontaan bu baax. waaw parce que nag bi nga xam ne la Rona di génn yow nga doon mbër noo ko dundee. waaw li dundee mooy maanaam. waaw yërmande rek amul da nga koy yërëm quoi mais tax man naa li neex si moom naa bu demee tamit waaw bu la la fay wone tamit day ñëwaat yaa ngi dégg. bàyyi bàyyi yaa ngi waajal. waaw man pare naa. waaw da ngay def open press. open press waaw jàppaguñu dara quoi. waaw mais xam naa bu woon weer bii nii rek. ñu bàyyi la. waaw li nga def doomu jàmm gën. di ko ñaanal yàlla may ko ndam bu seedu guy. waaw sama logo gi Thiat. waaw Thiat a ngi noonu. Ah, ndeysaan. mais eh, 100% bi may wax. waaw dem dama ko wax ki nga xam ne moom mooy Baba Diakhal. ni ko liste bi moom lañ fal la ambassadeur non violence. tey noonu tey tey noonu dundee loolu nga xam ne booloo bi ba yëg-yëg nga ci am. waaw ñun naas ñun yàlla boole nañu ba pare. kii man moom ba ñuy nekk lu ndaw lañ ba léegi. loolu yàlla ko yal nañu yàlla suturaal dafa ñu jàmm rek wala lu ñu woo rek ñu ngi seen lu ñu woo rek ñu ngi seen ginnaaw. waaw li soo saal ci loolu. waaw saa yoo lépp quoi. itam eh, ma ngi nii naa la. waaw fay naa leen. waaw téeméer naa ne euh, nan lañ koy làkkee ci njaago sax bu dàggalu. daa ko lu ah. nice waaw ba yaa ngi am jàmm. waaye maa am jàmm ak lépp. Zora nga jógee ci démb. lamb am solo barki démb. waaw yi nga xam ne ak alliance Balde. waaw yàlla la ci ndam. tey noo dundee mbégte boobu. non nice. lamb la rek barki man bis du man. ah lamb la woon mais dañoo jëloon 100% 99 pour cent yi jox ko ki nga xam ne moom mooy alliance Baldé yow maanaam tuut dañ la joxoon maanaam loolu lambaan dañ la xeeb wala comédien bi nga bi nga teg ci kaw la non non loolu lambaan man loolu laa bëgg fi làmb rek nañu favoriser ñeneen mais da ngay nax nit ñi la moo tax nga kaboy di dee indé ajul la yow doo baax mais dama bëgg nga leeral ma loolu non sëñ Fallou rek ba bëre bi ngay bëre man gisuma ko ci xale non munu ma dara bilaay ñoom ay jàmbaar ak bëri ñooy champion man xaw ma lamba gi kanam. tey teewaay fii si nga xam mooy doomu jàmm mbër bi. moo ñu fi indi quoi suñu mbër te ñoo bokk écurie bokk jàmm gën. nice. mu war a daje ki nga xam ne mooy fëgg la bu ngor. tey yan kàddu nga koy conseillé. lamb la rek. na ko yàlla suturaal may ko bu yomb bu gaaw bu neex bilaay. wala ah, amal jàmm. sëñ Fall waaw dégg naa nag nga ne diggante Balla Gaye ak bu ak ah, ak ah, Boy Niang ku daan. ku daan bëgg naa ku daan loolu risque la ci yow de <laughs> bu baax. maa leen di fay ginnaaw bañ sant yàlla si yonente bi di sant sama ñaari waajo bu baax a baax di sant waa koñ ma defal ko bonne presse maa leen di sant di leen gërëm li yombul wala li mooy wan ni yar moo am solo quoi li mooy wan ni yar moo am solo waaw ñun dañoo yar quoi maa leen di sant waa koñ bi yëpp waaw di sant waa doosi matt bi yëpp dina sama ginnaaw combat bi dina wax seen combat la waaw ñu gis nga jóge sa combat yow Gaucher nga am ci ñu ne c'est la première fois doomu jàmm gën dem ci grand combat te ki ngay jàkkaar lool bii mooy deuxième fois muy dem ci grand combat fëggala bu ngor mu bëre premier com grand combat wu ñàkk deuxième grand combat mu ne erreur bi ma defoon du ma nanguwaat mu dal ma ba tax na mu ne doomu jàmm gën lépp lu mu war a def ne ko def mais jour ji arbitre wàcce loxo moo ko fi bàyyi ah, sant yàlla rek bilaay laa ñu moom lu ñu siy wax du bëri dañuy wax def lu bëri parce que Seydina Mohamed grand combat petit combat laa yow la bilaay grand combat petit combat laa yemale. bilaay di sant sama waa Igri ñëpp di sant sama président Dick Fall waaw. ñu gis ki nga xam ne mooy Feugeula bu Ngor dafa génn Ngor génn Sénégal dem fi nga xam ne mooy Maroc ne fa ñu gis seen face to face yi ku seetaan ñu ne Feugeula bu ngoor boo gën a nekk ci état doomu jàmm gën est-ce que loolu yaa ngi koy ndax sa adversaire combat bi da koo jaral ba mu génn entraîné ji ñëwaat Sénégal. non est-ce que nekkul dama kaa diital kii sama avance la ko yombul. bilaay sama avance amaa xajam barki alxuraanu gën dama xajam billaay sama avance ne ko yombul boo ko lekkee foog nga tukki billaay si kàttanu yàlla su ma jaar ay moroom rek mais est-ce que bi nga jàkkaarloo liir nga ko ndax boo jëlee adversaire di nga xool ci fi mu fort ak fi mu am ay faiblesse est-ce que Feugeula bu Ngor liir nga ko vu que moom ak adversaire yi nga daan am bokkuñu. non benn la benn la billaahi dafa mën a xeex loolu laa mel dañ xeex dafa mën a xeex daa mën a bëre. daa mën a xeex mën a bëre lu muy wuti lu muy wuti maa ko daax lu mu bëgg maa waaw dañu yàlla may tarak fekke rek mais kii fëggale bu ngor mu ne dafa lay ñaan ngir yàlla ak yonent bi seen jour combat ngeen jàkkaarlool xeex deux minutes yi saf ndax moom boxeur la dégg na ne tamit yow it boxeur nga nee na est-ce que am nga fitu jàkkaarloog moom xeex ak moom benn xeex bu dëgër doo ko bëree. ñaata minute la 20. 20 minutes xeex 15 minutes man du ma pour boo six combats la am ku ma seetaan matul deux minutes boo ko calculé matul sax deux minutes ma arrière nu ma góor bi arrière sar bi ne par ma attaque ko si kàttanu yàlla bu yéexee yéen ay journaliste ngeen préparé lay caméra yi bu baax a baax ku xef doo gis jël ma koy vite maa ngi borom vite bilaay yàlla yàlla may tarak fekk rek mu ne li nga dina la nax ndax day dégg da ngay génn di dem ay compétition mais dafa bëgg nga xam ne arène nationale ak lutte simple duñu benn te yow mbëru lutte simple nga doo mbëru dóorante ci arène bi léegi na nee na bu boobaa mu nekk le 31 janvier si la lay wane yaa ngi doog a am combat te yow adversaire yi nga daan jàkkaarloo yëpp matuñoo am adversaire yaa ngi doog a am combat muy fëgale bu ngor. non man ay ndaanaan rek laa bëre. billaa wallaahi taalaay man xale bu fere laa maa ngi doon arène nationale. ku ma xajalul doo dugg. billaahi maa ma xajalul doo dugg. billaahi man doomu mbër laa. parce que Seydina Mohamed am papa ñu doon bëre. am na ay daw laax yu nekk jàmm yu koy fen nag yu koy fen quoi. waaw toujours waaw nañu téye seen tànk rek seen koñ. bay ñëw fii waaw. combat bi dañu kaa soxla quoi combat bi dañu kaa soxla. te li ñu si war dafa bëri te damay kaw doon di ko dóor nag ñun ay kàtt kat lañ ay mbayaar kat lañ waa dóor si ma de yaa ngi dégg maa ngi mbëru mbayaar maa di doomu jàmm maa ngi waaw bu ñu déggee bu ñu déggee ne dafa am ay dawlaak yu nekk si ginnaaw. muy ay góor jigéen lan te ñu gis li nga xam ne li nga xam mooy 100% 100 pour cent bi tey ñu gis fi ñëpp loolu yàlla leeral ñu loolu bu baax. non maa ngi sant 100 pour cent jàmm nga ñëpp maa leen sant barke Seydina Muhammad ñoom gis naa leen ñëpp gis naa leen amul ku ma gisul barke alxuraanu karim ñu ñu ko ba Kër Abdou Ndiaye ñoo ñëw ba fii. barke alxuraan karim amuñu loolu jàmmagal lañ dëkk. ñun jàmmagal lañ dëkk. barke ay portugais lan. dañuy nekk fu ñu nekk rek mbëru jàmmagal yëpp naa leen sant naa leen gërëm naa leen di leen woo ñoom ñëpp gis naa leen si bonne ñoom ñëpp nañ ñëwaat doole laan ma ma jàmm gan gi dafa ragal si tàmbalu yàlla mais doomu jàmm gën a est-ce que am na loo xam ne yaa ngi koy bàyyi xel ndax fëgg la mu ngoor dañ ne mbër yu ndaw yi nga xam ne ñoo nekk si première génération bi bokk na ci mbër yi nga xam ne moo fi ëpp ginnaaw ndax ministre yeeg député yi ñëpp ci ginnaaw ba tax mbër ku ci jël avancé premier esprit bi ngay doxee mooy yaa ko gën a jege arène nationale mais est-ce que say supporters dinañ am fu ñu toog ndax li mu jënd ko mën a jënd ci gis ku mel ni sa grand mbay ngay fay amul lu deful si làmb kooku nooy tiitee nga tourné gisaat si ñebe nooy tiitee amul ndaase waxi noppi Mamadou waxi noppi kooku du tiit jàmm nga man amul tiit waa bañ lal bi waa bañ lal bi bu leen gisee ku si mel ni moom mii nii fii fii kenn ku ne lu may man amul ragal ñaareel du ñu gis ne li nga xam mooy say Idriss am na ma yu fa génn semaine bi passé ñëpp yàlla dafa leen ndam pression boobu da nga koy bëriwaaleel ci li nga xam ne mooy Idriss bi wala. non man moo bëree pression de mukk si àdduna xalaatuma loolu sax ñoom dañoo entraîné ma am ndam yàlla na yokk yàlla na yokk ñoom dañoo entraîné ba am man tam damaa entraîné bëgg ndam quoi yàlla na ma koy si kàttanu yàlla. lan ngay wax Feugeula bu Ngor. Ngor wax na ma koy wax bëriwul woon. lu ma wax bëriwul. na pare pour lépp nag dina xeex dina bëre bu kasul war a mu raxas barke Seydina Muhammad ñan eh. woo ci combat bi combat bi ñu ma siy woo bari na di si woo waa Pacaara bu ndaw bi matagu ndaw bi maa leen siy woo bu baax matagu mag matagu mag bi moom sa jour maa leen gis ñooy nekk ak bu ndaw beeg yëpp di woo ku si mel ni grand góora maa woo billaahi ku si mel ni grand góora waa Jordan grand Jordan maa woo si combat Baye Sidi ba nekk Casamance maa ngi koy woo si combat bi léegi ngay fay ñëw na jarul sax ma koy woo moom ñëw na parce que alxuraan karim bilaay maa ngi koy woo gën a fay maa ngi koy woo gën a ñëw di sant di sant waa Januar bu baax a baax ku si mel ni imam ku si mel ni Abdoul ak soxnaam parce que rasulaay waa waala waa deg sa waala bii waa jàmm gën tamit waa matagi tandem si waa jàmm gën daal waa ndar ku si mel ni Lamine Seera sama grand yaa ngi si doon jàpp yaa ngi doon jàpp bu baax a baax yaa ngi doon jàpp baax dañoo bëgg nga gën a jàpp ku si mel ni grand gise sama grand bu baax a ngi noonu gise Seras Lamine Seras maa ngi koy woo moom kooku moom ñoo la wax ne maa ngi koy gën a woo di sant waa ci la bu baax a baax di sant sama mbokk wala wala yi sëñ Cheikh Mbacke maa ngay sant bu baax billaahi ak sëñ Mbacke barke Rasulullah sant nga ñëpp daal non looy wax presse bi nga xam ne dañoo bàyyi seen ñëpp tey ñëw non presse maa leen sant di gërëm Lay Ndiaye ak Sall business maa ngay sant. barke Rasulaay Fat Bintou Ndiaye monsieur le maire maa ngay wax ci combat mais bu ñu nee bi am na mbër buy jógee jàmm gën dañuy naan violence du ñàkk te ku ne xam ne ñaawte fépp la am. waaye jàmm gën ñi fi dëkk duñu def mais defkat yi dañuy wàlli si yàlla mu tax toujours jàmm gën la wax tey lan ngay ñaax say supporters. waaw waaw ah, waaw. maa ngi woo. wax ci violence bi non violence moom. Diamaguène koo xam xam ni violence bëriwul ku si maa ngi woo Zambère sama njaago bu ndaw bi sama njaago bu ndaw bi oh, oh, oh, sama ndaw bi. question bu mu la laaj fii dañ fay fal ñi nga xam ne ñaar ñi nga xam ñoom ñooy ambassadeur non violence muy Baba Diakhal ak ki nga xam mooy Liss Ndiago tey ngay dem bëre ji ngoone question bu la ko waxee lan ngay wax ki nga xam ne mooy xale yi yan kàddu nga leen di. kon Liss yedd na ma Liss ma. liis ak Baba Jaxal comme que ñoom lañ teg foofu noonu ci doomu yaa ñoom yedd nañ bu yàgg xanaa dañuy damay gisante ak ñoom chaque jour chaque jour damay gisante ak ñoom ñoom yedd nañ bu yàgg waaw fi violence amu fi parce que alxuraanu karim fii non violence moo fi am waa Ngor bu ñu indee yar ñu àndal ñoom si yar waaw luñ fi indi rek dinañ ko indi teg ko fi parce que alxuraanu karim par nañ pour tout daal bilaay sant nañ la sama papa bu baax a baax sama papa ma koy sant bu baax barki alxuraanu karim billaahi man jot na jot na waa jot na ma nekk champion bu mag a mag sama yaay dafa sonn di sama kër si di sama kër si Thomas top 5 maa bu baax di sama entraîneur yi waa jàmm nga si combat ku si mel ni Modou Fall Grand Lay maa leen di woo si combat ku si mel ni Père woo Ndik Fall sama président équipe ak Laye Ngom mbëru jàmm nga ni moom woo naa ñëpp ñëpp laa woo ñëpp barke alxuraan bu yeggee tamit maa ngi koy santaat bu baax a baax billaahi sëñ Seexuna Mbàkke billaahi mbagey moom laa sas beey beey beey mbagey laa ko sas santaat bu baax a baax barke alxuraan kay Modou Pouye garaaw bi tamit maa ngi sant naa leen yéen gërëm naa leen barke alxuraan karim fay ku si mel sama mag yi jigéen sama jawru mag ñam màgget ñam daya maa si combat ku si mel ni maam xale yi Teedu Njaay seen siir alxuraan maa ngay woo si combat bi jërëjëf sant nañ la gërëm nañ